ay ca Pape nañu door l'observateur mi xëy dikk ñun di lijjanti coow loo xam ne jamono ji moo lëmbee diwaanu Touba Mbacké di benn association bu fa jóg tuddee boppam euh, Touba ca kanam euh, teg benn projet lijjanti 24 milliards 24 milliards rek ni ko bëgg a lijjantee mooy 2 millions de murid la ñuy kenn ku nekk weer bu nekk nga joxe euh, ñaari téeméer yéen a kaay bi nañu loolee ba mu amee dafa am ñeneen ñu génn ne lu ñuy def sëriñ bi yëgu leen ci ndigal yëf yi dem ba egg ci xalifa moom moo ko mujj lijjante xam le ne moom génnelewul benn communiqué te it nga xam ne ñoo ngi koy def sant na leen daal ak ñu sax ci njub te fu ñu mën nekk nañu xam ne loolee ñu def kon am nañ ci ndigalam yéen a kaay bi nañu yëf ya kon projet Touba ca kanam la mujj ñu dem ci leneen lu ñu fan lay mujj ak yéen a kaay bi di le ñun ca Gambie ak la fa xew Yaya Jammeh journal bi xëy ñu xamale Cour suprême bi mu doon wax xaar kon mu wax ci recours bi Cour suprême bi nee ak yoon ak na muy doxee weeru mai wala weeru novembre ca la a wax

ci jàmme ma nekk ci manœuvre ngir jéem a ana nan lay def ba toogaat ci bopp réew mi waaye keneen koo xam ne journal bi nee nañu CEDEAO ñu ngi lijjanti mbiram mooy aide de camp Dadis Camara ba woon euh, di euh, Toumba moom Toumba mi ngi Sénégal jàpp nañu ko yéenekaay bi nañu euh, chambre d'accusation noppi na kon pare na ànd na ci ngir ñu extradé ko mu dellu Guinée Vox Populi xëy ci dellu siwaat xëy ñu xamal ci xëtamu njëkk ne mbiri Toumba Diakité mu delloo mu toog mi ngi aju ci Macky Sall décret rek lay signé bu ko ko yóbbu delloo ko foofee moom Macky mi ngi ci Le Soleil moo di Pikine doon inauguré stade Alassane Djigo bu diwaanu Pikine foofee sax la yëkkatee yile kàddu moo di dana ay stade bu bees ca Kaffrine ca Kédougou ak ca diwaanu euh, Sédhiou le témoigné xëy ñu xamal ne ba mu demee ca banlieue ba moom président Macky Sall feesal na banlieue ba ay digee digee yu dul jeex lu ne digee na ko fa ay jumaay 3500 places digee na fa ay deux voitures ru deñaay digee na fa it marché syndicat mu ne dañu koy defaraat libération nañu euh, fukki doomi aadama ak juróom-ñeent ngir kon di leen enquête yi dina kay xëyee mi le mbir mu di euh, ki tàggu ñëpp moom la xëy di tàggu euh, di artiste bii di Ablaye mbay demb la ñu ko jébal boromam enquête xëye bi le titre mu di adieu l'artiste Ablaye Mbaye ak album bi mu doon waajal yéen a kaay bi nañu intérêt général la ko bëggoon a tuddee ñeenti fan ci weeru février ci la ko bëggoon a génne pap ñu génn foofu dellu ci la tribune ak linga xam ne wax na ko mu di benn boo xam ne otom la ñu sàcc tribunal pap mu ngoog merci Mamadou Mouhamed Ndiaye ci